sant suñu borom bu baax mais bala may commencer damay sant ñi nekk ci salle bi yéen journalistes yi d'abord ngeen wuyu si ci invitation bi démb ci guddi lañ ko décidé di nuyu suma xarit jaawo nga xam ne mu ngi ci gëngu ci benn association sportive bu mag di nuyu suma grand frère Malick Kébé di honorable député nga xam ne député yi dañu constitué wu ci dossier bi pour benn commission d'enquête parlementaire ak ñaari question orale en ce qui concerne le ministère le ministère des sports ak le ministère de la communication nga xam ne RTS fi la jóge loolu li ko indi mooy dañu toog coupe du monde Qatar ak CAN bi ñu gis un milliard deux cent yoo xam ne état jox ko SD consulting sans consultation ni appel d'offre mu daaxal ñëpp am ñu nekk ci événementiel bi bu yàgg am ñu am moyen yoo xam ne ni kenn am ko tey xale yooyu yore seen écran yi soo jëlee six cent millions divisé ko par douze presque Couré mënoon na ci am entre douze vingt millions ñu jël xale yi di louer seen ecran yi trois million di leen yóbbu ci àll bi wala ñii quatre million amul kenn ku ci fay lu mat six millions muy lu ñuy dénoncé. li indi mbir mi li liñ koy gën a dénoncé RTS dane moom moom moom exclusif pour organiser li ñuy wax fan zone fan zone nag 2008 lañ la am mu nga amoon ci réew moom mu ñuy wax Autriche ak Suisse ci coupe d'Europe boobu pour permettre ñi amul billet dajee di seetaan match loolu ñun ñuy Sénégal ñi ñu ko njëkk a def. ñu am ci ferte bu baax def ko université Dakar def ko université Saint-Louis ak PUDC def ko université yu bëri maye ko nag commune yu bëri am société yu bëri aussi di ñu contacter ñu ne ñu ah, looy leen ñu logistique dañ koy maye Sénégal yëpp loolu la ñu xam Sénégal yëpp war ko seetaan benn nit taxaw muy Racine Talla moom RTS sam su fa organiser anniversaire su paree mu ne day def publi reportage daf may attaqué fay na ay mercenaires yoo xam ne mercenaires de. plume la fay na leen xam nañ leen duñ leen tontu ñuy wax ci man naan passé alimaane su ma passé dama ci fier comme ni ma ko waxee leen ci tubaab dama jàng fi ma war a jànge juddu fi ma war juddoo d'abord jàng fi ma war a jàngee diriger suma génération UNES diriger ko ñëw université Dakar di ko foofu dem France dem États-Unis su may erreur de jeunesse nag je fier su ma ko defuloon tey duma ma toll fi ma toll. mais nit ki mënoo ko juger ci ay affaire boo xam ba mu amee vingt ans wala dix-huit ans mais ku ne am na erreur mais am na fi nekk. am na ñu fi nekk les fidèles de Bachou waxuñu ko am na ñoo xam ne nii li fi ñuy jaar tey suñu wéetee justice fekk leen danañ leen jàpp te loolu man rus naa ko def ma su ma laal bar man nag kuy laal bar di wala ngay def loola neex manoo ma xas te nag li ñu xam dafa bëri suñu éducation mayuñu ko ñu wax ko suñu yar mayuñu ko ñu wax ko fi ñu toll ci réew mi mayuñu ko ñu wax ñu ak suñu xarit yu ñu bokk donc ku ne na am raison garder fii kenn mënu fi xas kenn tey problème bi du xasaate man dama poser ay problème kaaf dane moom jaayuñu jaayuñu droit exclusif à personne et bi mu ngi nii dinaa leen ko jox yéen journalistes yëpp droit yi ñuy jaay ay droit non exclusif la moo tax kenn amul droit ne lii maa ko moom avant ñuy conclure su neexoon TFM wala wala Sen TV wala keneen mu dem na man dama bëgg rajo parce que RTS moo wax Sénégal yi di ngeen gën a mer sur cinquantaine de match cinquante deux cinquante huit vingt neuf match rek lañ jënd ñoom mooy faale wuñ Sénégalais yi match yi des yëpp xanaa Coupe d'Afrique xanaa di nga seetaan yeneen ñeneen ñi ñu ne ñii xanaa kii Sénégal war na mën a dem ak Égypte équipe bu mag la Égypte Mozambique mu ngi nii dinaa leen ko jox te RTS tegu ko ak yeneen match Coupe d'Afrique suñ koy seetaan lépp te defoon na ko ci Coupe du monde bi mais problème bi du loolu wax naa léegi présence su député mais li gën a graaw ci problème bi. dafa am benn partenaire am ñu koy wax nii wóot télévision mu nekk fële ci Togo mu bind ay communiqué yu bidon naan ñoom la ñu jox droit exclusif pour ñu organiser Coupe d'Afrique entre privé TFM su bindee 2S wala mu bind iTélé loolu ñu entre privé la ñun dañ leen laaj indi leen lettre bu leen kaaf bi organiser Coupe d'Afrique ne yéen yéenay organiser fan zone fan zone décrire naa ko fan zone mairie moo ko war a organiser wala une société te nit ñi nag nañ ko nit ñi seetaanuñ sax RTS yéen keroog match bi ne ko seetaan mi-temps kenn seetaanul mais na régler loolu le vrai débat mooy loolu permettre Sénégalais ñu seetaan normal RTS moom wuñ ko alal c'est le service public c'est comme Sonaged bi ngeen gis wala port autonome wala leneen mu jël délégué ay service am jox ko keneen loolu dina ma permettre ma revenir ci acolyte am boobu complice am boobu coupe du monde quatar coupe d'Afrique bi jox nañ ko muy SD consulting Dakar Actu muy site bi ngeen xam man nag bañu ma ko ma bind ah bañu ma ko wax ci man parce que nit laa mën naa def erreur mën naa juum mais man mënuñu yor ay site di yónnee ma message naan man man j'ai beaucoup de dossiers sur toi da may bàyyi suma intérêt ma dawal ko ma ne ko bindal lu la neex ci man 600 millions lañ ko jox Qatar ci coupe du monde bi joxaat ko 600 millions ci CAF sans appel d'offre mais am na ay jeunes yu fi ne mais ñu xaaj ko sax mais loolu yëpp duñ ci dugg parce que ñun loolu yitteeluñu yi ñu yitteel dañu yàgg di may ay fan zone Sénégal fépp fa ñu dëkk Nioro Kaolack ak feneen ay société jël seen xaalis nañu ma kat monsieur Mané yow yaa yor global dañu bëgg nga loué ñu ay panneau ledd ñu may suñu ñu seetaan loolu mënuñ ko xeñ Sénégal yi te li ñuy wax ñun waxuñu yéen ay journaliste ngeen yéen a ma xam ñun waxuñu dañuy retransmettre visionnage la comme nga toog sa kër seetaan télé toog sa jardin seetaan télé jël say xarit dajale leen dem ci mbedd mi naan ataaye am caaf maire bi jaay caaf xale yi di fuuy ngeen jël vi ak écran bu mag def visionnage ñun loolu la ñu wax loolu du transmission ñun suñu yéen nekk duñu télé duñu dara te loolu mënuñ ko interdire benn sénégalais tey géejawaay su amul fan zone amul télé nga ne xale bi da ngay jógee géejawaay ñëw ba Dakar seetaan ko loolu fan lañ ko teg le droit de l'information est important beneen bi mooy dafa am lu am démb muy publi reportage ñu koy bind ñu koy ñu koy wane mu jël ay journalistes yoo xam ne nii saal buloom yëpp ñoo koy def ku ma xam nag ñu dëkk Saalum ma xam ko bu baax nag mais comme li ma wax rek su ma yar mayuma may dellu ci certaines questions yu ma séq ak nit ñuy wax ci man député mais man député laa mais damay liggéey ba may nekk di avant may nekk député damay liggéey yore ay centaine de travailleurs ñooñu du ma leen abandonné su ma yoon waxee nag ne député nii la war a def ak société bi suba suba ma def mais maa ngi contribuer ci réew mi di jël ay xale ñuy liggéey ba pare nag ma wax ko ne ko man suma génération moom journaliste ba doon wax ñoo bokk génération yabu ma ba ñu nekkee élève maa ko dirigé ba ñu nekkee étudiant maa ko dirigé te su ma yi ñuy fay ay. mercenaire ñuy wax loolu dérange wu ma parce que loolu moo ma may taxaw bi ma taxaw Amérique nag ba ma nekkoon réew moomu ñoom ñëpp suñ fa nekkoon dinañ def vingt ans trente ans ci kaso parce que li ñuy doxal du yoon réew mu mën a jël Donald Trump dugal ko kaso ancien président réew mu jël Martin Luther King Malcolm X nga xam ne su ñëwoon Sénégal su yàlla mayoon muy dund tapis rouge dañ koy tegal mu def ay vingt ans def àddunam lu ko neex yàlla defar ko mu baax réew moomu suñ ne aliment alimaane dawal na oto wala nangam dañ ko kii loolu ñu koy luñ nañ génne lu leen neex mais mois je suis fier de moom passé encore une fois de plus li ci am nag mooy journalistes yi li ñuy leen di ñaan rek mooy ngeen xoolaat document yi ñu leen di jox kaaf dafa génne benn document dinañ leen ko jox lii ngeen gis moom moo ko jox Racine Talla irresponsabilité bu toll muy 2020 dinañ leen ko jox mu ñëw fekk ma arena ñu koy inauguré mu ne lu tax parce que man maa ngi doo ko comprendre rancune bi lu tax ngay defar Youssou Ndour publicité defaloo ko RTS yu Ndour mooy kan ma ne ko man deful ma Youssou Ndour la groupe GFM laa defal contrat te soo bëggee ñu defal la contrat mënuñu nañ ko yónnee facture proforma facture bii bi ñu ko yónnee coow lu génn mu jox ko soo nakku li Dakar Actu mu ne xoolal Aliou Mané ma sa liggéey ma su ma encaissé un franc wu RTS na ko génne au contraire maa ko may publicité deux mois aéroport masu respecté lii masuma liggéey ak moom ci fan zone essayé na ko la mu bëggoon ñu def ci suuf ma bañ su ma ko nangoon tey bu doon may nekk loolu yàgg na parce que ba may commencé panneau nag ñiy tëb di wax booba xalaatuñ panneau dañu dem Dubaay jaay matériel bu leen neex RTS ba léegi mat am na journaliste yu ko yu nekk RTS ba léegi matériel boobu mosuñ ko utiliser ay centaine de millions li ñu war a wax dafa bëri mais loolu intéressé wuñu li ñu intéressé mooy Sénégal gunge équipe bi ñu ñaanal ko mu indi coupe bi Sénégalais seetaan nit ñu bëgg a seetaane coupe d'Afrique bi du ay 29 match ngay teg tey doo teg match Égypte suba doo teg beneen match loolu intéressé wuñu coow moo ñu intéressé parce que ñun liggéey rek la xam comme ni ma ko waxee nag yàlla def na ne suñu yar suñu éducation ak xarit yi ñu am bokk kook ñoom mënuñu yegg fu ñu yegg mais li ñu mën a wax ci ñoom lu bon bëri na mais suñu yar mayuñu ko te nag àdduna moom lu positif rek ngay wax Sénégal nag dañu bëgg di juger nit ñi ci lu négatif kenn du juger nit ñi ci lu positif mais nag xam na ñun mënuñu tiital mënuñu ragalloo te li am solo mooy sénégalais yi dinañ xam dëgg bi féete bi ñu déggee problème bi respecté suñuy droit moo ñun ñoo porté plainte dossier bi démb la plaidoirie bi am lundi incha allah la ñuy joxe verdict donc ñun ragaluñu suñu justice xam nañ ne suñu justice yoon lay wax mais war mënoo jël 52 match ñu ne Coupe d'Afrique la yow nga ne 29 match nga jënd nga ne exclusive la keneen kuy teg day fay RTS et puis ma fàtte borom restaurant yi borom hôtel yi nañ am seen ful ak seen fayda ñu bàyyi hôtel yi ñuy racket restaurant yi ñuy racket. loolooy vrai raquette bi xam nga journal wax na raquette loolooy vrai raquette ñëw nit ki fekk dans son droit privé mu yore tele nga ne ko Coupe d'Afrique bi ngay teg dangay ngay fay RTS loolooy raket ñu ngi koy def hôtel yi ñu ngi koy def restaurant yi man nag na ma wax kan laa raquette te nag lii dossier bi mu ngi taas mu ngi tribunal arbitraire sportif suñu avocat mu ngi ciy wax dossier bi bind nañ kaaf aussi kaaf li ñuy wax dafa leer nañ ne ñu ñun jaayuñu kenn droit exclusif te ba preuve du contraire du moom du génnee su ko neexee nag mu génnee mille contrats moom nii wër télévision tey RFM su ko neexoon mu signé ak seen TV contrat contrat privé la mais du ñu génneel contrat kaaf na ko yaa am droit boobu loolu may jeexalee parce que su ngeen xoolee lettre bi secretaire général moom dañ koy binduloo rek mu bind bu ministère sport bind dane SD consulting ñoo yor droit exclusif pour organiser fan zone droit exclusif lañ la ko jox fii kañ su droit exclusif doon RTS la RTS kañ mën na ko délégué nit wala mu jaay ko comme ni mu koy defee mais nag na ñu jël une entreprise privée ne moo yore droit exclusif sur le service public le service public mënuñ ko partager mënuñ ko jaay dans un environnement concurrentiel mënul nekk ñun nag dañuy wax d'abord di remercier le président de la république effort bi mu def jël département bu ne ñu def fa fan zone loolu ñun la ñu suivre ne dëkk bu ne ku bëgg fan zone ñu jox la à des conditions yoo xam ne nii di nga mën a organiser sa fan zone bégal sa sa jeunesse bégal sa population. adduna moom da ngay da ngay da ngay moytu parce que li ngay moytu mooy wax loo xam ne ëllëg suñu la ne la tekk ci sa baaram doo ci mën a teg sa baaram te tubaab danaan. s'il vous parvient une information boo xam ne nii venant d'un pervers vérifiez d'abord d'avant d'accuser d'honnêtes citoyens loolu tubaab da ko wax te du ma yegg nit doo am 66 ans 65 ans di dugg ci ay détails man xaw ma ko retraité de syndicaliste yi yaa ko wax mu ngi nii su ngeen bëggee depuis 5 ans nga nekk yow honneur rek may na li ngay xeex su nekkee dëgg la da nga naan man de ba ma nekkee maire nekk député nekk prêt dama dama résigné ci benn bi ne mënuma ko parce que yoon mayuma ko ak même suñ la wóoloo soo nekkee l'homme le plus compétent le journaliste le plus compétent du Sénégal cinq ans nga retraité ay syndicat di yuuxu yow nga toog fi nga toog anniversaire sax président de la république amul loolu journalu 20 heures ñu dajal ko maa ngi remercier son soutien suma mag Mamadou Lamine Diallo ak l'ensemble des collègues députés taxaw ñu lay defal anniversaire nga dagg journal télévisé xam nga am na loo xam ne Sénégal yi fii lañ nekk nag tukkiwu ñu demuñ fenn nañ revenir sur lu mu yàgg-yàgg di nga jógee foofu lu mu yàgg-yàgg di nga rendre ay compte donc bal bi à terre ñun Sénégal moo ñu yitteel xuloo yitteel ñu fan zone moom xale yi dinañ ko seetaan ci université yi yu ubbi xale yi dinañ ko seetaan ci quartier yi xale yi dinañ ko seetaan ci communes yi te mënuloo ci dara yàgg sa acolyte boobu muy Dakar Actu ak New World Euh, niveau télévision ngeen génnee ñu nag contrat bi leen kaaf jox ne yéen la jox pour ngeen organiser sax amu leen ko rajo bu mu neexoon mu teg kaaf parce que maa ngi koy répété jëndu leen sax lu mat fanweeru match sur cinquantaine de match nañu respecté Sénégalais yi nañ jox télévision yi fi nekk cër nañ jox rajo yi fi nekk cër ñëpp yem Sénégal ñëpp kontaan ñu gunge suñu équipe nationale ñu gañe ko je vous remercie